yéenekaay yi ci yéenekaay yi El Hadji

ñu jàpp ñoo xam ne ñenn ñi ay élève la ñu ñi ci biir sataaya la nekk yéen gi dañu xam ne kay moo jaaxal ñi nga xam ne rek ñoo di seen avocat leneen loo xam ne jaaxal nañu seen bakkan waaye itam nguurug Sénégal di ñu xamal nu muy Mohamed Siis mi nga xam ne rek jotoon nañu ko faat fekk ko jëkkëram yéen gi dañu xamal ne jamono mbir ma am na loo xam ne rek tàmbali na ci am gannaaw koy enquête gii nga xam ne rek doon nañ ko tàmbali am na ci ñaar ñoo xam ne rek teg nañ leen loxo waaye nag kenn ka jamono ji xel ñaaw na ci moom lool ne moom bokk na ci ñi nga xam ne rek ñoo fa Mohamed Sis neema américain ba neema américain ba maanaam daal ay traces matérielles yoo xam ne rek gis nañu ko laatir bi ñu yéene kaay di ñoo xamale courant bii nga xam ne rek yokk na ci réewum Sénégal ki nga xam ne moo di tas neema Thierno Alassane Sall kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko moom kay dafay xam ne courant bii nga xam ne rek yokk nañ ko ci réewum Sénégal bu ngeen gisee ñu yokk ko maanaam daal banque mondiale ñoo ko sant nguurug Sénégal ngir ñu mën leen a lebal xaalis gu bëri yéene kaay ga duñu xamale loolee kay mooy kàddu yi nga nga xam ne rek tas yëkkati ko yëkkati nay di Serigne Mbaye Thiam ci jafe-jafe yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci Thiès maanaam daal entreprise yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci wàllub carrière ba jamono ji ña ngay tàqalikoo ak seeni liggéeykat la ko waral moo di xaalis gu bëri yoo xam ne rek yoreel nañu leen fekk jamono jooje source ay yéen kaay di ñoo xam njiit réew mi Macky takk ñoquli takk jóg takk ne fees mooy mor ndaje moo takk jóg dakk na ko jóg maanaam daal génn réewum Sénégal dem ci yeneen réew le soleil di ñu xam ne tukki yi nga xam ne rek da ko amal ne ay fànn yu bëri nag te wuute ñu daanee la ko l'observateur di ñu xamal ne lépp loo xam ne rek jëm na ci 94 yi nga xam ne rek Ousmane Sonko jotoon naa def li nga xam ne rek moo di plainte ba yéene kaay gi dañu xamale moom Sonko kay dafa mel ni plainte googee nga xam ne rek jotoon na koo def jamono ji ki xam ne rek Interage Seydou Ndiaye